fees nag mooy Bassirou Diomaye Faye waaye gis nañ ci ginnaaw rek eh, yii yëpp amul woon waaye bi bi nga xamee ne rek maanaam tey jii eh, gaa yaa ngi ci eh, terrain bi pour parrainer seen candidat bi di Bassirou Diomaye Faye da gis ni maanaam ñëpp rek dañ koo yëgandoo ndax ca ginnaaw am na ñu taxawoon di wax waxi parrainage ba gaa yi naan ndax parrainage yi daa am. ndax santiruñ ko fenn gisuñu ko fenn yëguñu ko fenn waaye gis nga bi ci ñiy duggee rek voilà loolu nag am na lu muy tegtale am na màndarga màndarga ma am na màndarga tamit mu muy wane am na màndarga mu muy wane voilà am na lu muy tegtaloo tamit voilà kon ñoo xam ne rek euh, loolu yëpp je pense que Sénégal rek moo ci bénéfice soo Sénégalais ciy gagné voilà 2024 moo ko waral. bu nu eggee ci élection 2024 yi nag sénégalais yi àtte voilà bu ñu àttee rek voilà ku nu jox ndam li rek voilà na ko ñëpp nangu rek te ñu ànd nag liggéey Sénégal te ñu bàyyi coow li wax naa ko dinaa ko waxaat voilà moo tax nag euh, xale yi man li ma jaaxal ci parrainage yi sax mooy xale yi maanaam ñoom daal ñu gën sawar ci mbir mi daal ñu nekk ci kanam léegi xam nga bu njëkk mag ñi ñoo daan dem xale yi nekk fële naan leen ah dem leen yéen dem leen ngeen woote yi ñun moom ay affaire woot moom xam nga maanaam daal doon gone jàpp ne maanaam mbirum woot moom sa yoon nekku ci waaye tey léegi xale yi ñooy dem di wote ñooy dem di lijjanti mbirum carte d'identité yi ñooy dem di parrainage yi ah lool nag nekk na loo xam ne ni kon jamono sensé na te jamono dafay dox te nit ñi dañuy ànd ak jamono dox te fi mu toll li ñu gën a avancé rek nit ñi di gën a yeewu di gën a xam bu baax a baax a baax lépp di gën a ubbeeku ci seeni bopp moo tax nag ci kanam tuuti pour ku leen mën a jiite du yomb de maanaam jiite leen du yomb waaw ki leen di jiite moom lenn képp la maa def pour réussir li mu bëgg a def mooy lu mu wax rek def ko waaw lépp lu mu wax rek na ko pratiquer ca sensé amul sax ma dem te ñëw voilà parce que bu fekkee ñoom dañoo soxla te xale yi yeewu nañ te jàpp naa ne dañuy gën a yeewu di gën di dem moo tax ki leen di jiite ëllëg lépp lu mu leen wax rek na ko def bu ko deful rek moom ñeneen ñi fi jaaroon képp ñoo yem. parce que sénégale yi kenn moomu leen voilà yaakaar rek lañ am te yàlla bu yàlla tas seen yaakaar ci képp koo xam ne jàpp nañ ni kii bu yoree réew mi mën na leen a dimbali ci côté yëpp voilà xëyum ndaw meeg ndaw ñi ak dund gu cher geeg yu baree bari yooyu yàgg nañ koy dénoncé nit ñi dénoncé nañ ko ba sonn waaye loolu yëpp xam ngeen ni moo fi nekk voilà kon loolu côté boobu noonu bàyyi leen ci xel kan daal parrainage yaa ngi yooyu di am ba léegi kan